nguur gi baaxul loolu rek mooy seen finalité waxtaan ak nuñ ko mën a wëlbatee nag mm-hmm. finalité bi li ci nit ki di déggee nga xam ne loolu xaala koy dégg yëg-yëg a koy dégg mooy askan wi jug leen dem songi nguur gi te xeex ak ñoom ndax nguur gi baaxul lii rek lañ jublu woon wax dañ ko dul ñeme nag waaye danañ ko ràbb ñi dugal ko ci diine ñi dugal ko ci analyse politique ñi dugal ko ci analyse juridique ñi dugal ko ci waxi société civile ñi dugal ko ci lu ñooñu nag askan wi baat dañ ñu leen di jox dañ ko jox politique yi parce que politique bi dañ naan dafa far ci bërëb te dafa àndatu bërëb boobu mais ki na faruma fenn ba pare nit ki lay déglu daf lay dégloo maanu te fekk saa boo analiser rek nguur gi nërmeel te groupe lañ boo xam ne wax ji ñi ngi ko tàmbali ci Covid 19 bi Covid bi amee rek lañ jël benn phénomène ban phénomène lañ jël mooy lu nguur gi dogal baaxul groupe bi ma la wax watal ci ginnaw ba xam nguur gi ma sa jël décision buñ défendre ñom ñi ma fi wax ñep kenn la ma sa gis nguur gi jël décision mu défendre ko ci muy teyib sosé biñ tëjee jàtte ñi ci dess ñëpp lu nguur gi jël safan bala ñi and ñom légui nak euh, journaliste yi ci organe de presse jappalé len ci jappalé bu ndax ni ñu def ba ëmmati askan wi ba indi len fi dañ ko toggu peut-être Covid ba lañ ko tàmbali boobu mbirum aji saar rek kam ko siqal xew a gudd mm. ñu ngi ci Covid bi ñoom daal dañoo taxaw ci di seetaan décision bu état bi jël rek décision ba nekk lu bon contraire décision ba nekk lu baax ma joxe ci exemple bu concret mm. dañoo xëy état bi def concertation daal di tëj jàkka ndax mm. feebar bi dugg na te jàkka yi dafay wàllaate ndax ressemble lieu de rassemblement la mu am lay wu dëgër ci diine diine ji def ñaari xaaj am ci ñu jàpp le état bi def ci diine ju wér la ko teg am ci ñu jàpp ne li état bi def jaaduwul mm-hmm. télé yi jël seen micro yi xañ ko groupe bi nga xam ne dañoo jàpp ne tëj gi dafa jaadu ñu mm-hmm. xañ ko leen seen micro yi dem ci ñu jàpp ne tëj gi jaaduwul dictature la jaay doole la xeex l'islam la ñu dëkk leen seen micro yi mm-hmm. xale yi di liir ñooñu mujj gi xale yi dañuy gis ne décision bi état bi jël dafa impopulaire parce que gisuñu kenn ku koy défendre fekk effectivement parce que journaliste yee xañ micro yi ñi ànd ci décision bi dem jox ko ci ñi ci àndul mm-hmm. ñi ci àndul tamit di waxee dënn di waxee ngëm-ngëm di waxe xol ba xale yi jàpp ne kon dañoo bëgg a xeex diine moo tax ñu tëj jumaa yi waaye feebar bi luñ kéré la ay tappale la mm-hmm. bi xëy daal mujj ne waa man mbaadu décision bi dafa impopulaire parce que daanaka imam yi ma gis ak da yëpp dañuy attaqué décision bi tellement deltu ginnaaw deltu ginnaaw tijjiwaat jàkka yi même équipe bu journaliste yi jëlaat seen micro yi dem jox ko ñu àndul ci tijji taxañ ko ña àndoon ca tëj ña àndutoon ca tëj ga parce que comme bu groupe bale am nañ satisfaction boo leen joxee micro yi ñuy wane seen mbégte mbég moomu day wàll askan ñu xañ ñooñu micro yi dem ca ña ca res mooy ñi nga xam ne tijji gi lañ d'accordul ñooña di attaqué état bi ci tijji gi wane ne dafa bëgg askan wi affronté maladie bi dafa bëgg a rey nit ñi loolu nag lan la mujj jur ci askan bi état bi daal du def lu baax état bi du def lu baax ndax dañoo fexe ba parce que décision bu état bi jël am na ko mu favorable am ñu mu favorable ñoom nag bu favorable woon junniy nit favora défavorable eh, juróomi nit micro yi juróomi nit ñooñu lañ koy jox fexe ba juróomi nit ñooñu di wane jamono bu nekk décision bi ni mu leen ñàkk a favorable su ko defee nag askan wi nag daal di mujj nag émate wu ba diggante ba Covid bi tàmbalee ba tey biñ demee nag émate askan wi émate émate mënuñ koo réussir parce que yàlla dogal na. suñu borom moom xul jaa al xaq batil te nag di nga jéem a fexe wayam kuruna wayam kurul laaw waaye wallaahu nag xayrul makirin fexe ma jàllul mbirum aji saar daal xew ak kim ko seqal bi mbirum aji saar xewee kim ko seqal ñu baraakewu na ñoom grup boobu ba tey ma lay wax delluwaatal ginnaaw nga xool mbirum aji saar ba mu tàmbalee ba tey saa bu ñu analyser aji mbalit ma rek nga koy yéene état bu Sénégal it danañ ko dugal ci mbir ma boole ci jëmmi Macky Sall ba mu taq ripp ba pare nag taqal leen ci ba ñu taq juumloo leen ci ba ñu juum jëmmi ki nga xam ne nag moom la ñu accusé mu waral coow li ñu xool fa ndox gën a laabe ñu raxas ba mu set dégagé ci responsabilité am depuis le début nanguwuñu responsabilité am nekk ci lu toll ni deedee wu we boo dégloo ak analyse yu may wax askan wi di guux rek parce que askan wi toujours dañu jàpp ne ñooñu dëgg leen tax di wax ndax faruñu fii faruñu fee ñu profité nag ci naturalité boobu ñu présenté askan bi fu ñu analyser nërmel nguur gi te fu ñu analyser yëkkati jëmm wala yëkkati benn kuréel wala yëkkati benn parti loolu moo tax ñu jot a réussir lu ndaw la ñu réussiroon ca euh, deux mille vingt et un xaw koo réussiraat nii donte que ne maa ngi dalal xelu askanu Sénégal Sénégal cent quinze mille quartiers moo fa am

ñu utiliser ko ci dossier bi te wut yoon taxaw fi mu taxaw rek di doxal maandu di doxal dëgg ba atte tey da ay sanction ñu xam ne foofu it buntu ba tëju na ñoom ñoo baraake wu ci soi-disant troisième mandat même groupe bi la parce que jamono bu ne nañu ut fuñ jafandu ba ne mi na nar meelu rek te duñ ba ma doog a ñëw nag kon ci aaya ji ma tax a jug léegi ñii nag seen wax parce que ñaari façon waxkat ñoo am ci àdduna wala xadd wassalna lahumul xawla لعلهم يتذكرون لا نسني برام ديجل ني ما في سنة فوق لين دون خار سين وخيم ني ما لرسمة سين وخ ميجي دقيت آية جمان جك جانغ سانق يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين سمو كو بغي فيري المبوكي سونو بروم واخنا يا ايها الذين امنوا ين نيغم يالا in jaakum saa bu leen indilatee faasixun ab kàccoor bina ba in ci benn xibaar ci ab xibaar information fata bayyanu na ngeen ko leerlu bu demee ca tafsir ya dañ lay wax fata sabbatu na ngeen ko saxlu ba mu dëgër mooy na ngeen ko leerlu rek ndax su ngeen ko deful am bu mën nañ leen a pousser ba ba ngeen jam ba ngeen songu xawman aw nit bi jahalatin ci erreur fa tusbihu immédiatement songu mi lan lay mujj jur ngeen xëy rek ala ma faaltum naadimin rëccu ngir sababu konari bi nga xam ne fausse information boobu dugal na leen ci lan mooy sababu nuzulu aaya bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo yónnee yabal benn njaboot ku ñuy wax ci saxaaba yi mu nekkaloon am ku mu yónni ku ñuy wax walid ibnu uquba ibnu abi muaytin moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jël ne ko dama lay yónni ci bani mustalaq soo demee nga ne leen nañu dajale seen azaka yi jox ko nga indil ma parce que heure azaka jot na alwalid juk war a dem jëli azaka yi waa dëkk ba yëg ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam kat yabal na ndaw ta ndaw laa ngi ñëw kon nag ar rasulu bi xadril mursil ndaw lu ne dafa ame daraja yi maqaamam ki ko yónni kon nag walit mii ñëw ñun nañ ko jàppe ne yonente bay ñëw ñu préparé lañ gën a rafetle mobiliser waa dëkk bi ca buntu dëkk ba pour buy dugg ñu teeru ko walit di dugg rek ñu daw gàttandu ko di ko teeru ji walit daal di rek daw ndax dafa ñaaw njortu ne dañ koo bëgg a song ngir faagaagal ko ndax dafa amoon ak ñoom dig te dig bi dafa xaw a yàgg tam jàpp ne vengeance baa ngi fi mm-hmm. kon jàppal ma baatu njort wo dafa njortu kon mm-hmm. mu daal di dëpp bi mu dëppee daal di daw dem jàppal ma foofu baatu njort mm-hmm. sànq waxoon naa la jàppal ma baatu faasix mm-hmm. tey ma ne la jàppal ma baatu njort